Bokuya Bokuya sugi dang lay liu su tay wan te hao mo nat di ni gen di nyo e Son Excellence, M. Matistan, le président Marie Thank you. li ñu daloon fii. amiin ni jaayu moo li ah. mu wax mooy. injustice baaxul. wante man Macky Sall day yàlla defee. ma ah. jël réew mi yéen injustice bii leen dal. dinaa régler problème bi.

wala ma demba daf ko def ndax borom moo bañ injustice ma bëgg yéen waa Sangalkam ngeen bokk ndey bokk baay bokk ak nga xam ne ëllëg ñoo dara bokk commune daal di jublu ci liggéey de ci wàllu économie ci développement économique et social parce que collectivité territoriale mission mooy toppatoo nuit, wi toppatoo le développement toppatoo seen jàmm toppatoo seen wér-gu-yaram toppatoo seen infrastructure toppatoo le cadre de vie cadre de vie. bu ñu xam nag ak ñun loolu la ñu mës a nekk de développement ci la xas di continuer parce que loolu président Macky Sall sant bu dee ñu toll président Macky Sall jël na ay mesures yu am solo jëmale ko ci ndaw ñi ak jigéen ñi. 450 milliards la jël ci ñetti at yi di ñëw. 150 milliards jagleel ko emploi ak employabilité yi ak femmes ci loolu mu ni dootoo ñu réglé ci problème yi Dakar ci bureau Dakar déedéet dañuy wàcc ba ci département yi ci communes yi. xale bu ci bëgg am projet wala groupe xale yi ci am projet ñoom ci seen wàllu bopp ñooy wu ñëw. bu ñu egsee ci préfecture yi tax encadré xamal leen ñuy def jël leen financement jox leen ñu liggéey muy jigéen rawatina jënd amul dugg ci néeg defar sa liste dem ni financier ma ñii déedéet moo tax ba yéen war ngeen comprendre loolu ngeen mën a dem def def curieux mën a jot ci financement yi cent cinquante milliards yooyu dinañ fexe département bu ne jot wàllam commune bu ne jot wàllam wante duñ jël xaalis bi teg ko ci ma Samba wala ma Demba ñu koy politique di ko def neneen déedéet day dem directement ci jeunes yi ak famille loolu di Sénégal des Sénégal benn président ma su def kon ci loolu la leen di woo muy tailleur yi muy ñuy def menuiserie métallique muy ñuy def menuiserie bois muy soudeur yi muy maçon yi muy ñi nga ñoo ñu ñoo ñu lañ koy jox ñu liggéey puisque à partir de la rentrée prochaine des classes dañuy imposer élèves yëpp ay sol ay tenues wante tenues yooyu gouvernement bi du ko commandé dañuy dem ci commune bu ne élèves yoo fa nekk ñu recensé leen tailleur ya nekk commune ba yëpp nag maanaam fii tayeeru Sangalkam yi ñooy ñëwal waa élève bu Sangalkam yi tayeer yu Kounoune ñooy ñëwal waa Kounoune tayeeru Nouvel Horizon ñooy ñëwal waa Nouvel Horizon tayeeru Kër Diaylo ñooy ñëwal waa Kër Diaylo tayeeru Bambilor ñooy ñëwal waa Bambilor tayeeru Dène ñooy ñëwal waa Dène ñooy deni géej loolu la président Macky loolu mooy am incha allah ndax réew pour mu dox foog nit ñi am ci li ñu yëngatu waaye nag président Macky guddi ci suba ba ngoon ci bëccëg wala ba guddi ñu ngi ci wetam jàppale ko ci liggéey boobu xam naa ni Sangalkam dem ñu ko ci néew maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant avant ca kanam ca kanam ca kanam Thank you.